assalaamu alaykum mbokki auditeurs internautes de Rewmi daleen nag jàmm ci seen émission mi People kon chaque samedi dinañ toog ak benn ndaanaan benn artiste tey ñu am mbégte di dalal Demba Guissé di artiste chanteur ñu bàyyi ko nag mu nuyoog yéen waaw asalaamaaleykum ana maa ngi leen di siyaar di leen nuyu waa réew mi yëpp surtout réew Rewmi euh, TV mi FM ak quotidien bi yëpp ah donc di leen remercier aussi ci tey dalal bi ndaxte réew mi moom eh, eh, eh, sunu réew mi la. d'accord ñoo ko bokk alors euh, Demba ñu tey boo waroon présenté wu kan mooy euh, Demba Guissé nooy présenté sa bopp. waaw bon xam nga euh, euh, Demba Guissé moom boo ko déggee rek ah, sa xel dina dem tuuti ci euh, côté bi nga xam moom laa nekkee parce que léegi Guissé moom tout le temps dañ leen di faral di dégg ci côté euh, art. waaw ah, ma nekk nag koo xamante ni vraiment suma suma famille majeure partie bi yëpp dañu dee yëngu ci aar donc euh, ma nekkoon ci gën ci nekk xale te yàlla dogal mu nekk Demba Guissé bii donc jaaroon ci ay concours ay concours la ma Sénégal yi njëkk a xamee ma jóge fa donc concours nag bu si nekk rek yi am Sénégal ak yi am ci sous-région bi et tout ba ci bokk rek ñëw nekk meilleur chanteur donc bokk naa ci quatre ou cinq concours yoo xam ne yëpp man maa ngi nekk meilleur chanteur yàlla di ma dimbali nag ba deux mille euh, sept laa gagné Oscar de Vacances meilleur chanteur ba deux mille dix ma dem représenter Sénégal Mali jël deuxième dellu si waat deux mille onze bokkaat ci concours bi xeex si xeex si groupe bi Youssou Ndour defar nekk meilleur chanteur donc à part loolu nag donc ma commencé def samay vidéo aussi samay vidéo donc yàlla def daal vraiment euh, tournée yu tàmbali depuis deux mille 2012 voyage yi tàmbali euh, anniversaire yi tàmbali donc mu nekk tey Demba Guissé bi nga invité tey moo jàkkaarloog yow. d'accord euh, sànq yaa ngi ne comme quoi bi nga commencé musique bi jàll nga ci ay concours. Euh, def nga ay genre scène yu bëri est-ce que euh, après bi nga ci duggee carrément ndax di compliqué parce que boobu oui def nga ay concours mais est-ce que euh, ce début compliqué na. ah début yi moom yi si neex bariwul parce que boo ñëwee du fa fekk dara. Mm-hmm. ngay xuus di forcer pour que aussi am image am aussi li artiste bëgg mooy promotion. donc yàlla nag diñ dimbali ba aussi début bi metti woon na mais quand même après bu lu ñëw rek da ngay xam ni que noonu la war a mën a demee mais quand même est pas quelque chose bu bu bu bu metti à ce point boobu noonu ko parce que lu ñu yàgg fooye la mhm. te it suñu mag ñi jaar nañ fi donc dañu won rek na naka la ak nan la ñu topp ci loolu quoi mais quand même bon sant yàlla d'accord yaa ngi sant yàlla bu baax alors ñu gis ni aussi que d'habitude tout le temps ci say wéy day am euh, genre euh, variété en pulaar ak wolof est-ce que da nga jàng musique classique wala euh, nan la demee non bon jàng bi du dem par exemple conservatoire ou école des arts yu mel noonu noonu mm-hmm. mais jàng naa ko ci ci ci ci ci àddina bi jàng naa ko ci mag ñi jàng naa ko ci sama carrière ak par rapport ak sumay concours yi ma jot a def yëpp ak su may prestation ak ñu may xam ñoom laay côtoyer lu bari les grands artistes donc tey mën naa ni mbapat boobu nga fay def donc loolu doy na jàng aussi nag maa ngi ci bëgg a yàgg yàlla def na aussi que lu ma génne lu ma def Sénégalais dañ koy apprécier Eh, donc jàng bi nag foofu nga koy foofu ngay xamee nag la nga doon jàng même bu dee ni tariwoo lépp am na yi nga jot a wane sénégalais gis ko donc euh, loolu daal bokk na daal ci lu ma ci lu ma gëstu lool ci sama côté liggéey muy gëstu ko ci mag ñeeg euh, aar bi fu mu toll ak donc coono yi dëbb dëbbal yeeg gisagoo kenn et tout ça loolu mënut ñàkk donc euh, sant naa ci yàlla daal. kan euh, moo la inspiré kan moo la poussé à faire de la musique. bon xam nga man dama doon déglu ma nekkee xale Baaba Maal. Mhm. donc tey su ma dee woy pulaar tey mën naa ne Baaba Maal mu ko gën a poussé donc mhm. ak yooyu ci côté wolof nag bon bon peut-être Ablaye mbay dama ko doon woy woyam depuis ma nekk euh, ñu nekk xale. Youssou Ndour ak yu mel noonu noonu mais quand wax dëgg yàlla nag bu fekkee dëgg rek neex. Baaba Maal moom mooy suma idole te Sénégal yëpp xam nañ loolu loolu moom du question sax bu ma nit di laajate si kii moom ma siy patiné euh, salaamaaleykum maaleykum salaam dem Demba Guissé nangam nangam man la Baaba Maal. Mhm. d'accord est-ce que en dehors de la musique euh, am nga ay projet euh, en solo si oui est-ce que mën nga ci mën ñu ci wax. waa ci solo laa nekk nii parce que xëy na solo. d'habitude euh, ku nekk ci groupe du ko mën a def ku mm-hmm. nekk ci groupe ah, ku maanaam ku collaborer ak ay nit di woyandoo ak ñoom du ko mën a def ou bien li ñu koy def du bari mm-hmm. maanaam solo laa nekk donc du du du du du boo tënkuwuma ci ci ci ci à cause de nangam et tout ça quoi man tout le temps maa ngi liggéey sama liggéey man kese ci woy bi waaye ci liggéey bi nag du nekk man kese parce que day nekk euh, mbooloo mi staff bi les managers ak euh, bon ñi nga xamante ni ñoom ñooy les connaisseurs ci musique sénégalaise aussi que musique africain sax laay wax pour que ñu mën la teg si axe si si axe mais quand même euh, yàlla dimbali na ma ba loolu mu ngi dox ci sama côté. d'accord ma sentir ko waaye. alors euh, moo ngi dox sa côté est-ce que mën nañ ne Demba Guissé moo ngi dund ci aaram. bu baax sax. ah waaw genre euh, musique bi changé na sa vie en fait depuis nga euh, génnee Oscar ak euh, concours yi nga jot a def yëpp qu'est-ce qui a changé ban point positif nga fa jëlee ak yooyu. waa xam nga xam nga boo xoolee tey ana say sa image daaw. Mhm. wala daawati jéeg wala trois ans ci kanam ak léegi bokkatul. Ah, man nag yàlla dimbal na ma. ba même bu fekkee ni mës nga maa gis benn nit samay wayu yàgg boo ma gisee tey xam nga ni tuuti am na changement. Mhm. changement bi nag ce n'est pas quelque chose de xaalis et tout ça. Mhm. mais da ngay gis euh, ci côté yëpp ah ci ci ci physique bi ci mantal bi donc ci communication bi et tout ça dafay changer donc yàlla mooy def noonu mais quand même musique dañuy faral di wax ni la musique na nourrit pas ne nourrit pas son oui donc bon am na partie nag bu ñu waxee bu tubaab bi waxee dëgg côté boobu noonu. Mhm. mais aussi am na côté boo xam ne aussi ñu bari ñu ngi tëdd Sénégal musique moo leen teral. Mhm. donc c' est quelque chose boo xamante ni c' est vice versa. d' accord c' est vice versa alors Demba lan mooy ce rapport euh, euh, yeneen artistes yi. mais rapport les artistes mooy rapport bu rafet bi ma si xëy ñëpp. tu sais man damaa baax aw problème. man dama baax quoi man je suis l'ami de tout le monde. ah <laughs> donc j'ai pas de problème pour ay lii ak yooyu nekkuma ci monde boobu. d'accord je suis l'ami de tout le monde ah. lan mooy sa rapport avec euh, ta sœur Pendo. ok moom suma xarit la suma sœur ñu bokk ndey ak baay. et euh, xam nañu aussi que mënuñu réeroo ci ay liggéey. Mm-hmm. parce que bu ñuy def mbir su may def dara moom day assister toog. ou bien mu def ba pare mu ne lii laa sant lii ak lii donc euh, relation avec. Euh, entre frères et sœurs. et frères donc foofu moom vraiment su ma ci bëggee expliquer fii lay fanaan. ci su wax la rek que ne que c'est le sang. ok Demba à part euh, la musique ci lan ngay yëngu à part musique. looy def maa ngi samay petit business. comme quoi par exemple. non business. parce que jaayu ma géej gi yët mais non <laughs> mais il faut il faut góor ñu looy def comme ça les gens ñu xam ne que dem euh, en dehors de la musique euh, mu nga yëngu ci lii. Ah, su fekkente ne tu fais des business pourquoi pas xëy na mun nañu ñëw euh, acheter un truc chez Demba. crème laa jaay. crème c'est mieux que rien. <laughs> <laughs> alors ñu gis ne Demba instant bi nous sommes dans un contexte un peu particulier. Euh, période mbas mi est-ce que euh, coronavirus bi daa impacté ci sa liggéey lu bëri. impacté wu ma. et pourquoi pourtant artistes yu bëri pour la plupart ils disent que corona bi waa impacté na sama liggéey bu baax yow pour une fois. nga ne euh, am nañ tudd distance ak sunu fans yi. am nañ distance ak ñi nga xamante ni bëgg nañ ñi ñi seen ñi woy. Mhm. et tout ça quoi mais impact biñ ko bi bon xaw ma xam fi ngay waxee laay waxee ou pas. bu dee impacte impacté na nit ñi si ko seen côté liggéey quoi. Mhm. mais pas impacte comme jooytu ay xaalis ak yooyu quoi. sincèrement côté côté liggéey surtout. ah oui bien sûr mais artiste bu sañoon kay chaque week-end wala chaque deux ou trois jours nga joué mais quand même mënut a ñàkk. d'accord léegi euh, tey benn jeune bu ñëwoon gis la ne la Demba Guissé dama bëgg dugg ci euh, musique bi ban façon conseil nga koy jox. musique. bu amee beneen métier bu mu bu mu am ba pare. Mhm. Euh, te mën na ko def mën see réussir si àddinaam na ko def. Euh, parce que musique dafa day waar. fekkee ni yàlla may na ko nag talent ci musique bi. ba am na mhm. ci yaakaar ñi ko encadré am nañ ci yaakaar aussi. Mhm. na si na bi. waaye xam naa ne moom euh, musique waaye kenn du ko jàng. waaw ah day ne ci yow d'abord leneen ñu la jàng rek dañ la ko dollil pour nga xam mooy technique bi ak circuit yooyu quoi mais waaye moom c'est quelque chose boo xamante ni bu fekkee ni que mënoo ko moom mënoo ko rek mënoo ko. léegi euh, parlons euh, d'actualité ñu gis ne que fan yi daa benn sujet bu sensible bu ñuy waxtaanee ci médias yi comme quoi euh, jeunes yu bari dañuy faral di jël gaal bi pour euh, dem lan moo lan moo ci sa xalaat. waaw woyoon naa ko nit a ngi dem ci gaal gi ndax amul jàmm fi mu yewoo xëy na peut-être amuñu pexe mhm. xëy na amuñu liggéey amuñ ci luñ jàpp xëy na gis nañu que ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di peut-être ne que euh, euh, euh, séentoo yenn affaire seen biir kër seen biir famille amuñu loolu ñu gis ni tukki rek moo koy faj ñu déplacé wu dem yàlla dogal li yàlla dogal mais man je préfère euh, su may dem Europe ma jaar ci avion yi c'est plus respectueux que c'est plus c'est plus sax correct même nga jël gaal nga dem ci euh, géej gi xam nga ay di fay ay nangami mil déplacé wu dem dëkk bi dafa metti dëkk bi dafa wóorut wax naa ko sànq ñu bare ngi xëcc di dem ci gaal gi ci géej gi ci euh, ci ci Espagne mm-hmm. waaye xamuloo loo fay fekk xamuloo lu fa am e gannaaw yàlla may na la nga nekk xale góor wala jigéen sax nga dem ba yàlla may la nga am sa bakken bi nga xamante ne ba liñ naan borom borom karaw bu ñuul ñàkkuloo dara eh, xalaatoon naa xëy na euh, euh, ñoom ñu delluwaat seen xel baax a baax te xam lu am rek yàlla moo la ko teg te bàyyi mbëkk mi daal vraiment daal c'est pas ànduma si. waaw mais xëy euh, na solution boobu donc lañu gis pour dem léegi euh, ñu gis ne avant dañu doon gis euh, ci lamb léegi ba doon genre def comparaison entre lamb bu njëkk ak lamb actuelle ban analyse nga ciy def parce que gis nañ ne lamb amatul bayre comme comme bu njëkk. lamb bu njëkkoon sax tax ku woon am bayre lool autant. Mhm. Ah, après la am bayre. Mhm. jamono. bi ñoom Tyson ñëwee. après ñoom Tyson ñëw dem waaye fii ñeneen xale yi ñëw ñeneen ñëw mooy ñoom Modou Lo ak ñoom Balla Gaye ñu ñëw nag yëkkatiwaat affaire bi te it yàlla def na ni que sunu sunu sunu sport national la dañ ko respecté fexe jàppale aussi ñi nga xamante ne aussi ñoo nekk ci làmb ji bëgg mu dox. Mhm. tey jii euh, différence làmb démb ak tey. xëy na bu njëkkoon dafa daan gis tuus danga gis mbër mu ñëw def ñaa ñaata sër sëru sëru kii xam nga yaa ngi dégg bu njëkkoon yooyu dafa amoon euh, xeetu cumbukaay yi ngay gis léegi nag mm-hmm. amut woon léegi nag la xew nga gis ay ay ay ay ay ay ay cinquante en bouteille ci affaire bi tuuroo ko def ay affaire yaa ngi dégg léegi nii la la la la la la la kii bi gën a bari bruit bi par rapport ak bu njëkkoon. Mhm. te léegi naal dafa xaw a doy waar ci mbukaay yi xam ak yi ñu ciy dégg des fois da lay sax tiital ndax dëgg yàlla bu ñu mënee xool daal ci les anciens c'est important. ñu ci anciens ñoom quoi parce que c'est vrai que CNG aussi c'est bien parce que ñu ngi bàyyi xel si ngemb yi nuñ koy ngemboo ñu ngi bàyyi xel ci affaire ñu ngi def ay amende juste rek pour que bu faay amee wala nit bu defee erreur ñi mën ko ci yar. waaye wax dëgg yàlla làmb bu njëkkoon ak làmb bi léegi moom wuute na fem dem na ba ba mbëri feccatuñ sax feccu mbër léegi léegi sabar lañ koy fecc si si waaw ah, yaa ngi may remarqué loolu mm-hmm. ok donc waaw donc changé na daal changement am na mm-hmm. alors euh, Demba Sànq yaa ngi ne euh, da ngaa yàgg yaa ngi commencé yàgg ci art bi ça fait combien de temps déjà ngay def musique daaw laa daaw laa laa def euh, quinze ans de carrière. alors euh, quinze ans ci quinze de carrière boobu est-ce que mën nga wax euh, benn souvenir boo xam ne daf la marqué souvenir négatif walla positif loo xam ne ni. souvenir kan man. waaw benn souvenir bu la benn anecdote souvenir bu la marqué ci ce quinze ans de carrière. ci musique bi. ci musique bi bon souvenir ma marqué. non souvenir bi mu marqué nag mooy ma demee Mali représenté Sénégal quoi. Mhm. jóge fii dem ci dëkk boo xamante ni amoo fa papa amoo fa yaay. Mhm. donc yow rek yaa fay làkk wolof. Mhm. ñii ñu ngi làkk bambara ñii soose ñii malenke ñii ñii euh, yeneen làkk quoi. man kese mooy làkk wolof foofu. c'était compliqué. c'était compliqué mais nag comme que aussi damay làkk ci pulaar euh, ci kii bi euh, ci. ci français bi. Mhm. xëy na moom si génne moom si génne waatoon waaye wax dëgg yàlla souvenir boobu moom bokk na ci lu ma gën a marqué ah ma koy fàttaliku ba tey ndax nekk gi nekkoon ci case dafa loolu c'était c'était extraordinaire quoi. expérience bu. expérience parce que foofu musique la ñuy def. Mhm. foofu nekkuñu si caaxaan yooyu de. musique la ñuy def dañu doon yeewu sept heures du matin ñu woo ñu huit heures neuf heures ñu ah, tegal ñu ay affaire teg ñu si charte. nag mhm. la ñu war a wooyee fan la ñu war a jaaree. boo nekkee si kaw seen nan nga war a waaye boo meree nii nga war a comporté boo defee nangam nangam nangam wala ñii ñuy boole ay grands artistes yoo xam ne dañuy ñëw di ñu tàggat ñu jox ay affaire ñu naan ay lipton ay lemak ak ay citron lu ne si àdduna du su wax ne ne école la woon si ñu na ah, moo tax tey bu ñu génnee foofu tey naam lu bari loo xamante ni dinañ ko xam te fekk ne foofu lañ ko jëlee woon. d'accord alors mhm. euh, Demba ñu jàll ci dernière question quels sont tes projets ci lan nga nekk. bon projet ñu ngi jëm décembre. Mhm. le 7 décembre incha allah rabbi maa ngi villa Cristal. Mhm. avec euh, artistes yu bari public bi aussi ñu ngi leen di xaar. Euh, le 7 novembre incha bi ma leen di invité waa yéen réew mi. d'accord bu weesoo loolu aussi maa ngi préparé sama beneen tournée boo xam ne c'est en Italie. Mm-hmm. non Espagne. Espagne Madrid non non mm-hmm. maa ngi war a ji benn programme bu tudd no euh, programme moom ni ko maa ngi bu mag bu tudd auditorio. Mm-hmm. donc fa laa ko war a tëgg incha allah bi mu wax nag dar bi parce que cat dafa gaaw. Mm-hmm. mais quand même ñu ngi ci projet yooyu quoi. Mm-hmm. d'accord alors euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo euh, ak ñu la doon seetaan di la déglu. di leen remercier euh, d'abord Rewmi TV Rewmi FM ak quotidien bi yëpp ah. donc di remercier yi ñu seetaan ñëpp ah. tey moom. ah tey forcé naa bu ñëw émission bi ndax boo ma xoolee xam ne tey moom nekk ko fi sax. nekkoo keñ parce que depuis sànq ba léegi yaa ngi ëbbali. maa ngi ëbbali dama sonn liggéey bi ak yooyu mais nag bu réew mi wootee ah, foog ñu déplacé wu ñëw parce que vraiment ah, ah, fu fu ma neex la. Mhm. te it mu ngi jàppale les artistes. d'accord merci d'avoir accepté l'invitation. merci beaucoup Anna maa leen di remercier baax baax baax naa leen. yàlla na seen jàmm yàgg ak fu nekk ak fi ngeen toll nii. amiin asalaamaaleykum. voilà chers auditeurs internautes lii lañ leen andiloon tey ci seen émission Rewmi People ak Demba Guissé maa ngi leen di jox dig daje semaine prochaine ak beneen daanaan d'ici là portez-vous bien restez-nous fidèles et prenez soin de vous.